spécial bi tam daaw de min mooy ay euh, nit ñi mën nañoo ñëw fekkee ko wala. waaw foofu foofu foofu également tey ji boo xoolee par exemple les dispositions de l' article 388 bu code de procédure pénale. Mhm. daf ne audience euh, pénale dafa war a nekk lu nga xamante ne lu public la. Mhm. et contradictoire donc tey nit ñi am nañ possibilité ñëw fekke ko mais article boobu daf cee teg ne su fekkee ne juge bi ci boppam ki nga xamante moom mooy présider audience bi. Mhm. président du tribunal. dafa jàpp que ni publicité boobu la fait que nit ñi fekkee ko dafay nekk lu nga xamante ne c'est dangereux pour l'ordre public dafa mhm. dangereux pour les bonnes mœurs également mën na ordonner le huis mhm. loolu article boobu wax donc nit ñi am nañ possibilité dem mais moom bu jugee que ni le fait que nit ñi teewee foofu nekk na lu nga xamante ne mën na troubler ordre public wala nekk lu nga xamante ne baaxu ci ci ci les mœurs et mën na ordonné li nga xamante ne moom mooy huis clos à part de ce moment là. Mhm. ñi nga xamante ne ñoo ko waroon fekkee duñ ko mun fekkee dinañu mën a juger mais bu demee ba war a rendre verdigam bu boobaa dafay permettre nit ñi. Mhm. ñu daal di ñëw. mu daal di lire li nga xamante ne moom mooy verdigam ñëpp fekk ko mën a mën a mën a témoigner que ne ah, jugement bi nga xamante am na lii mooy li nga xamante moom mooy dogal tribunal bi. Mhm. alors article 380 du code